assemblée nationale euh, ngir euh, dal di euh, càmbar li nga xamné moy le projet de loi numéro 03 2024 relatif à la commission nationale des droits de l'homme niki non nak ci le député bi di Abdou Mbacké Bara Dolly dal di évoquer waatee li nga xamné moy mooy mbiru Cheikh Omar Diagne ginaaw ba mu yëkkatee ay kàddu jëmale ko jëmale ko ci yoonu murit waye tamit ci yenn ci suñu chef religieux yi ci dëkk bi moom nag li muy sàkku mooy ñi ñu daal di ki nga xam ne Cheikh Omar Diagne foofee ca présidence de la République je cite li mu wax monsieur le ministre de la justice euh, je profite euh, de cette euh, instant solennel en tant que petit-fils de Serine Touba pour demander au président de la République de virer le professeur Cher Omar Diagne, a-t-il lancé, demanda à Ousmane Diagne de transmettre son message au chef de l'État. Il, est inacceptable que M. Diagne, après avoir tenu des propos, puisse rester à côté du président de la République. Mon message le le ministre de la Justice di Ousmane Diagne ngir uh, mu daal koy jallalel uh, ci uh, kookee ci président de la république ngir mu daal di dàq ki nga xamné moy Cheikh Oumar Diagne ba tay ñu dess ci walum politique pour parler. Euh, maintenant de la reddition des comptes avec les premières décisions euh, du procureur de la République ibrahim Mondoy. La euh, semaine dernière le fi premier ministre daal toogoon track bi commencer dès cette semaine même si koy wax nag yaakaar naa ne da cee amoon lu ko leer moo libération tey ci seen xët ku plus d'informations sur ce sujet bu ñu que ci libération li ñu wax qui est di Ibrahima a euh, plusieurs transmis concernant les rapports de l'IGF, de la Cour des comptes, de l'IGF, de l'OFNAC et de la Santif ba tax na ñi nga Abdoulaye Seydou Sow nekkoon fi ministre de l'urbanisme ak euh, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football Momit it ki nga xam ne Mamadou Gueye di ancien DG des domaines dañoo bëggoon Daldi, daal di euh, génn AIBD leen d'Aldi di carré ne leen mënoo leen dem ndax ci liste bi nga xam ne loolu la autorité yi joxe ne daal di bu ñu euh, génn réew mi ba tey ñu daal di des euh, ci wàllum information ngir daal di waxtaanee jëye yi nga xam ne euh, moom la ñu yeewoo tey muy ab accident boo xam ne am na foofee ca ndàngal ma collision, une collision entre un bus et un camion a fait euh, 16 morts encore une fois euh, tali bi mu ngi daal di wéy di def ay euh, victimes euh, ndax bilan provisoire bu ñu amagum mooy am nañ fukk ak juróom benn nit yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan niki tey foofee ca Bambey ci axe bu bu ñu woowee Njamafal nek dans la commune de Nangalma fi mu toll nag loolu lañu daal ci eh, amaguma ci bilan am na it ay blessé yi nga xam ne limuñu leen waaye ñu ngi ne am na ay blessé yu xaw a bari tuuti danañ ci ñëwaat eh, ngir eh, daal leen ci indil yeneen i information ba tey ci wàllum actualité tey ñi nga xam ne ñooy la famille des traducteur euh, euh, de la famille des des communicateurs traditionnels euh, la la communauté des communicateurs traditionnels du Sénégal est en deuil un bain euh, président emblématique de cette institution, a perdu l'un de ses fils, Babaka Abdoulaye Mbaye, connu euh, sous le nom euh, de Mbaye Diop Farimbay, Selon des informations rapportées par Asfixia, le défunt a été rappelé à Dieu ce lundi matin à Dakar. La prière mortuaire est prévue à Tisbar cet après-midi à la Zawiya et la à Tiwawan. Bingok. tiis bi nga xam ne euh, famille Mbaye yeewoon nañ ko muy génn àdduna ki nga xam ne euh, mooy euh, Babacar Abdoulaye mbay ñu gën koo xamoon ci mbay Diop fari mbay mu nekk doom ci ki nga xam ne mooy le communi le grand communicateur traditionnel di élage Hadj Mansour Mbaye ñu ñanal ko moom fi mu daal di fi mu jëm gënal ko fi nga xam ne moom la daal di jóge surtout yàlla suñu borom daal di koy yërëm ba tey ñu continuer ak wàllum information ngir daal di wax ci migration irrégulière bi nga xam ne fi mu toll mi ngi way di continuer 300 euh, migrants nag ñoo daal di chaviré ci fofé ci baax ñi d'après information yi nga xamné l'observateur modique d'aller ko daal di euh, l'embarcation manam bateau bi euh, mon nom plus de 300 personnes ci 300 personnes yoy konté won ci trois jigéen ak ñenti xalé yi nga xamné ñu ngi won ci biir cependant à na yeneen nationalité yi nga xamné ne aussi nekkuñu won ay sénégalais ci ñooñee euh, japp nañ ci ñu ci bari waaye ki nga xam ne moo nekkoon capitaine bi doon dawal gaal gi dafa euh, daal di euh, daw juste après et puis bateau bi daal di suuxee ñu woyal li nga xam ne mooy information yi daal di tabbi ci li nga xam ne mooy people pour parler de cette histoire qui secoue les réseaux sociaux depuis samedi soir muy diggante Kiné Badiane ak Amina Ndiaye ak euh, jëkkoo ne Badiane di a euh, Khadim joxaane ndax gis nañu wala dëkk nañ depuis samedi ba tey ay audio mi ngi génn ci réseau yi ñuy waxanteelu euh, ñaaw buñ sukkandikoo ci Kiné Badiane mooy Amina jëkkëram di Khadim daloon entretenir ay relation ak yi nga xam ne mooy Amina mooy ami Amina Ndiaye ba tax na moom ami Amina Ndiaye daal di koy euh, yónnee ay vidéo yi nga xam ne tegginewul euh, surtout euh, yónnee ku le xaadim ginnaaw bu ko Kiné daal di yégué nak mer na saaga na ko waxante nañ ay baat yu ñaaw ci ci ci ci réseau yi alors su ngeen bëggee xam ana la leen doon waxanté euh, daw leen gaaw ngeen euh, liri jiko ci euh, métro Dakar ndax bu ngeen démé di ngeen daal ci fekk audio ba mu and ak texte bi nga xamné mo ëmb mbir mi lee ba ñu daal ci woyal li nga xamné moy walum people bi pour parler cette fois-ci de la famille d'Aziz Dabala ñom ñi nga xamné nak nag nañu ki nga xamné ñoy Wali dem euh, présenter ji seen condoléances seen mu acte depuis lors ñu gis ko ci euh, réseaux sociaux yi image yi daw Sénégal yépp ko ndax ñi nga Aziz ak ki nga benn relation bu fusionnelle boo xam ne tey yaakaar nañ seen ñaari famille yooyu waruñu nekk di am ay jixi jaaxa wala ñu am yenn animosité ba tax ne ba ñu gisee euh, li nga xam ne mooy euh, mbir mi ñëpp ci kontaan ñu daal di jeexalee ak soirée euh, Mia Guissé bi nga xam ne moo doon am ñi ki samedi keroog ca casino bu Paris Mia Guissé ak Jahman nag daal di nañuy créer polémique ci benn duo bi nga xam ne ñu ngi ko doon def keroog Paris ñiy jàpp ne. way wi Mia dafa saaga ñi jàpp ne Diamane eh, dafa saaga ñeneen jàpp ne jaamaan saagawul Mbiya Guissé saagawul c'est juste que ni ay parole la rek yoo xam ne ah, peut-être dafa tegginewul wala boog ci dégg-déggin bi mi ngoog ñëpp loolu lañ ko jàpp alors euh, daw leen gaaw ci euh, suñu buzz ngir daal di euh, dem suuf suufu article bi commenté ba xam Mbiya dafa saaga wala saagawul wala aussi laxaat di jaamaan dafa saaga wala saagawul en tout cas daal ñu ngi daal di créer buzz bi ndax coow li bari na trop ginnaaw wi leen gisee sur sur euh, scène ñu daal di yëkkati ay kàddu ci ab euh, prestation bi nga xam ne ñu ngi ko doon euh, def mi nga ko li nekkoon seen émission sur la toile tey ma leen di jaajëfal ci ànd bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak ñun di leen wax continuer leen ngeen ñu topp sur nos différentes plateformes surtout bu leen fàtte daw gaa abonné ci suñu service premium bi ko defee ngeen bokk ci ñi nga xam ne. nous gën a informé wu euh, ci ci dëkk bi ndax euh, suñu ndaw yi nekk ci kër gi ñoo daal di xibaar yi nga euh, ko de manière professionnelle surtout avec éthique et déontologie alors gaaw leen gaaw ngeen dem abonné yi ci suñu service premium bi quant à moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans votre émission La Bonne Heure d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée à demain